ngeen ñëw fii yéen étudiant yi ñu toog nii dalal leen lu war la lu war la parce que li ngeen def dafa di rëy dafa di lu rëy te nee nañu ku def lu rëy am lu rëy euh, defe naa ngi bi day des bu yàgg ci boppu sénégalais yi que mën nañu am yaakaar ci ëllëg parce que yéen ay xalel ngeen ay ndaw ngeen yuy jàng mais won ngeen ne bu askan wi soxla da ngeen ñëw taxaw nekk seen rek te yéen am lu ngeen di représenté parce que Sénégal doomu dafa taxaw xeex xeex bi xeex la bu nga xam ne dafa amee njiit ñu nekk ci kanam mais xeex la bu nga xam ne Sénégalais bu mu nekk fu mu nekk daf cee taxaw te taxawaay boobu ni muy toll noonu lay gën noonu la ñuy gën a gaawee génne ci mbas mi yéen seen taxawaay mooy yéen a ngi taxaw di wax di jëf taxawaay benn mais yéen ngi taxaw tamit taxawaay jàppale ñeneen dajale euh, quatre millions huit cent mille ñeenti ñeenti ak téeméeri junni ak juróom fukk loolu lu am doole la bu jógee ci ay étudiants te lu nga xam ne defe naa tey lu fi njëkk am kon ñu dalal leen fii maintenant ma leen di jottali

président wane ko te yéen tamit di ko ngeen ci loolu lu baax